Angle. bu xasee xew rek kenn du ko sooxaale muy paan yi muy pompe yi pompe yi xam ne mooy nekk si forage yi yooyu am nañ juróomi la yoo xam ne seeni yàq ñu taxaw mën naa ko lim rek yéen gën koo xam mooy forage bi la nekk ca Sao. forage bi nekk ci biir université bi wax rahmatul aad. forage bi nekk ci Kër Ñan. forage bi la nekk ca Touba Lansar. ak bi nekk ñu wax bi nekk. forage Ndiokere bi nekk ci hectare minam. juróom yooyu yàlla dogal nañ ñoo paat. xëy na sax paaloon nga wuñ xam nga. ndaxte. forage bu mel ne bu saab mhm. ak bu jurukabe ak Touba Lansar mhm. yooyu daanaka ci mois de novembre ba nëga ni dañu paanoo mhm. mais xëy na euh, li nga xam dañoo lëkkale forage yi seen tuyaux yi day tax am na ci yoo xam bu ñu taxawee it yi di leen di xaw a yóbbaale bi day tax nag xëy na bu tëgee bi secteur boobu servir mën naa bañ a xel mais bu Mhm. foofa ba mu dal ba demande wàññiku mhm. parti yooyu day am ndox mhm. moo tax yooyu mën naa a yeex a feeñ mën naa bañ a métti yenn métti yi waaye boo gisee bi mu paree mooy bi nga xam ne bi ci rahmatul aad bi nekk université bi bi bi mu paanee muy ci début mois de mars boobu nag li ko waral day forage boo xam ne dafay servir bu bëree bëri Madiana benn partie d'Arcos ak day renforcer xaayira hmm. te dafay moom dafa nekk ci presque fin de réseau bi hmm. xam di bénéficier lu bare bëri daanaka di bénéficier sax hmm. ci interconnexion yooyu ma doon wax xam nga moom daanaka saa yu taxawee rek parce que na service foofu day ñàkk ndox kon yooyu ñu ngi ko tudd nag mooy Québec wala wàllam saa yoo xam ne suñu paanee dañu ko mën a sooxaale ñañ seqal mooy nekk ci biir dëkk bi yooyu ñoom dañu mën a soox ba ci kanam kër yi ñaŋ moo ci mujj kër yi ñaŋ moom it kër yi ñaŋ moom ci une semaine lay toll. Mm-hmm. li mu yooyu. waaw ci kër une semaine lay toll. Mm-hmm. moom it ay forage bu xaw a yaatu gannaaw. Mm-hmm. tàmbalee fa wàcc wàcc fa xaay rek jëm ba côté moo tax moom it euh, paane yi dafa dafa yokk dafa yokk manque ndox mi. yooyu daal ci ñooñu mooy forage yi xam ne fi ñoo taxaw. moo taxaw nag moo indi jafe-jafe yi xam nga li ko war a yokk nag dafa teg période bi tàng aussi tàng xam nga période tàng bi ñu soxla ndox day bëri xam nga mm-hmm. soxla ndox pour naan soxla ndox pour utiliser tey mm-hmm. na yële booy demee ren sax kenn duñ sox sedd bu taxaw taxaw bu métti métti amul mm-hmm. waaye xam nga ñene nekkoon boori novembre jëm décembre lu bon bon boobu la ko newoon ci xaw a seddaay bi xam nga waaw loolu da ci xaw a feeñ yàlla mais yi nga ñëw ci xam nga période yi depuis mois de février jëm jëm mag. dina mhm. gën xam ne période tàng. Mhm. période tàng nag boo defee ñu soxla ndox dafa bëri ñu ko soxla ndox loolu nag da ciy xam nga. Mhm. moo waral xam naa ne période bii ñu nekk. ndox ci war a euh, wax. ak dox ñu ci. Euh, war na maa leeral tuuti rek ne mbiri pompe yi. day doon loo xam ne ci ñi ñi saytoo liggéey bi. moom état bi moo ko féetewoo. farata gi nga xam ne nag sëñ jo joxoon ndigal ñu créé Maou Rahmati sëñ Saliou Mbacké yal na yàlla yokk leeram daal si pakke da ko waraloon ñu mel nii sax moo tax mu def parce que boobu dañ daa xëy na ay paat ñu ba defee ñu wax fu Diourbel ci division hydraulique Diourbel nga xam ne mu di administration balaa ñëw day yeex mhm. te xëy na panne yi sax mën nekk panne yoo xam ne du bokk waaye panne yoo xam ne xëy na deux cent mille ba trois ba quatre cent ba cinq cent mille mhm. xam nga ñu ko def force taxaw sax ci ñu ko defee mhm. mu ne comme ñoom ñoo ko yore nañ leen jàpp lu ñu liggéey yi waa panne yu ndaw yi mel noonu maa war a ma ci moom jël ko financé ko ñu réparé ko ñu continuer liggéey ci loolu xewee nag ñu aaj ne liggéey bi kon comme pompe yi moom daa xaw a diis ñuy tax te pompe lu mu ñëw ñëw pompe yi toll ni forage ci Touba yi dana jar dix millions mhm. ak la muy àndal élément yi boo ko boolee daanaka douze millions dana ko mat xam nga mhm. ñu ne kon état bu mu continuer di ko di ko di ko di ko joxe moom di joxe frais d'entretien forage yeeg ak réparation réseau hydraulique bi mhm. mooy fuite yi nekk ci mbedd yi waaye am na ñun am na ñaari équipe ñoo xëy dem réparé ko matériel bi si war yëpp nañu dem jël ko ci producteurs yi joxe ko ñu defar ko mhm. forage yi it lu pompe yi rek maa joxe mooy yëpp nag pièces yi jënd lépp ak lépp lépp ñoo ko ñoo ñoo ko yor loolu lañ doon liggéeyee xam loolu lañ mhm. yoon nag bi mu ko defee ca ca mois de novembre foofu forage yi paane boobu bu njëkkee paan mhm. ñeent la woon boobu saam la woon ak wàllansaar ak forage yoo kebe ak arrangement benn pièce gaaru Thiès la donc ko defee dañ ko ko waa direction de direction direction de OFOR. Mhm. parce que xam nga Touba moom bokk ci réseau. Mhm. SDE muy Sen'Eau léegi. Mhm. forage yi la bokk xam nga forage yi xam nga OFOR moo ko yor ñoom bokk de forage yi ruraux. dañ ko waxee boobay ca cent ca cent période yooyu ñoom jàpp la woon nañu joxoon nañu benn pompe pompe bu ko defee. Euh, temps boobu jàppoon ne Arafina mooy ci gën a xaw a sensible yóbbu ko ci Arafina xam nga mu des ñett. waaw. programme am affaire administration. Mhm. te kon euh, budget bi di bëgg a jeex mois de novembre décembre. Mhm. budget état bi daanaka. fin de fin de seen dégluwis lay nekk. xëy na moo ñu lu par exemple bon ba nga nii yaatu yaatuñu ay koom. Mhm. fan yii bi loolu xewee it jokkoon nañu ceeb au réseau général Ofor. lancé woon ay marché sax yaakaar naa ba choisir nañ ay fournisseur nga mm-hmm. xam nga pompe yi yu bëree bëri à l'étranger lay jógee xam nga mm-hmm. seen fournisseur bi ñu jógee xam naa kii na ñoom waaye moom it problème bi xam ne moom laa mooy problème transport yi léegi xam nga mm-hmm. mooy xam nga avec euh, kii avec euh, covid 19 bi am na suspension transport aérien bi ñu bi bi ñuy dina léegi xam naa pour kooka yéen seen i pompe yi du yomb xam nga foofu xam ne ñoom it am na am nañ ci blocage yooyu. Mhm. waaye teewul euh, waxtaan ci dëkk bi. Mhm. dëkk yëg nañ ko kilifa yi. suñu mbokk yi waa Touba ca kanam yi. Mhm. Eh, suñu abibu bi sëriñ Fàllu jiite ko. ñu di ko jaare ak ñoom baat suñu abibu di ñoom suñ Fapal Gueye ak ñoom si am yooyu ñëpp ñoom it. Mm-hmm. ñu ngi ci dox ay tànk yu kii am ko ñun depuis boobu fan yii yëpp ñu ngi ci ànd ak ñëpp ñu seet yenn pexe. Mm-hmm. ba ñoom daal jàpp nañ cee bëgg nañ cee dugal seen loxo. Mm-hmm. baax a baax ba pompe yooyu ñu am ko. ñu ci procédure bi. xam naa mën na wax kenn mais avancé nañ ci daal. daanaka ñoom daal yaakaar nañ leen ci avancé nañ ci. xam naa jàpp nañ ne boo ci yàgg boo ci yàgg bu mu wax tey la wala suba la mais jëlañ décision daal ñoom foofu yooyu pour jox ko waa Touba jafe-jafe ji loolu daal la xaar. Mhm. waa OFOR it ñu ngi leen déglu xam naa xëy na góobu mu gaaw ci la wàcce kanam lañ ci yaakaar ñu jàpp ci ci xam naa xam nga ne fi ñu. Mhm. période yi ñu toll it mbir yi xam nga. Mhm. ndax euh, transport aérien beeg même surtout ci ci dëkk bi il faut nga am autorisation. waaye ci yooyu lañ nekk. waaye ñu ngi ci def lu ñu comme ça nag ñu jënd pomp yooyu ñu jëlal ko. Cheikh Moussa Ba. loolu daal ñu ngi masawaat nag waa dëkk bi xam jël ay citerne di ci jàpp lu néew néew ci quartier bi. am ko gërëm gërëm quartier bi ñu ci dimbali waa OFO bu ñu waxee direction économique waa économique ñoom ñu gën a ci ba ñeent citerne ñu ngi ko yor. ci jàpp rek ci dimbali askan wi wàññi coono yi. Cheikh Moussa Ba. waaw waaw euh, mu mel ni kon euh, euh, tawat ji nga xamante ni si moo nekk ci forage ji wàllu pompe la mais wàllu réseau bi moom réseau bi moom amul benn jafe-jafe xam nga xam nga réseau bi moom xam nga kenn mënut a wax wax ne réseau bi amul jafe-jafe mhm. moom jafe-jafe yi ko daa soxale ndax nekk xam mhm. nga waaw da ko daa soxale waaye mbir mi taxaw mu taxaw ne kët na joon moom ci mhm. pompe yi rek la waaw sa ko son pompe amoon nañu ko rek continuer réseau bi moom si am jafe-jafe yéex xeel li wala naa nga waaye li taxaw moom mbirum ci mbirum réseau bi. ndax mhm. réseau bi moom am na jafe-jafe yoo xam nag waaye loolu xaw na cee yàgg. teew mhm. te booba ñu koy ñu koy ñu koy soxaale ñu koy wéyaale. Mhm. waaye lii taxaw moom du mbirum pompe la moom. pompe yi juróom forage yooyu. ñoo manqué pompe yooyu waaw. xam nga bu ko bi. daanaka dootu fees xam nga. bu feesul nag bu réseau bu nag ndox mi daanaka du taxaw fenn saa yu ubbee forage yi comme dañ leen a relier. ndox mu day daw bu daw nag fu kowee rek da lay romb yow wàcc ci suuf xam nga. Mhm. waaw donc loolu moo waral yenn quartier yi ñoom daanaka bu fekkoon dafa réseau bi nag temps normal la woon ba yëpp forage yëpp di dox. Mhm. bañ kii ko bu feesee am nga ndox mi daanaka mhm. mu a tànwaay a yoroon da lay romb dem xam nga. loolu moo indi yenn am yenn jafe-jafe yi. Ah, Cheikh Moussa waaw mu mel ni euh, waa askan wi daal moom li leen lënt moo di euh, dañ cee déggagul dara ñu wax ci comme nii nga def nii nga def nii bañ mën koo dégg ndax jotul yéen ngeen woote ngir wax li nga xamante ni si mooy jafe-jafe yi ba ñëpp yëg ko. ah waaw ñu ne suñ jóg ngi wax de wax jàpp ne mooy rajo wala dara ba wax xam nga. ñeenteel woote yow mu xam nga. dëgg la. comme xëy na kii bi def tolluwaay bi yow ñu ngi leen di gërëm yéen ñii defe dañoo jàpp ne rek bu dee rajo lii ngeen def yéen mm-hmm. ba ñeen defe ñeen defal ko xëy na mu ngi si déglu rajo yëpp waaye déglu mm-hmm. kii xëy na ba ñoo ne keneen déglu beneen mm-hmm. loolu daal mooy kii mooy ñu leen di sant ba waaye loolu daal mooy kii yaakaar naa ne def nañ ko def fan yi yaakaar ñeenteelu média boo xam ne euh, woo nañu laaj ñu wax loolu ñu ngi ci même ministre si ñuy bay jàpp juróom fan wala ñeent keroog dimanche yaakaar naa ne. Mm-hmm. Euh, benn ci euh, bi wax ci affaire yi ndox mi ci problème Covid 19 bi. Mm-hmm. am na ci parti bu mu tegle woon Touba mais waxoon na ne bi fi ne. Mm-hmm. ci yor marché bi ay difficulté la am pour indi pompe yi waaye ñun xam nga comme ñu la yemuñu jaloo la rek xam nga. teewul fii ci dëkk bi ñu ngi jokkoo kuréel bi fi ne Touba ci kanam sax laay wax ñoom xam ne yàgg nañ cee taxaw parce que daaw rek ñu bëgg a jëndoon nañ ñaari pompe yóbbu ko benn bi fële ca Bagdad benn bi ci Siraat Ahad ñu wax tey loolu ñoom it taxaw nañ ci tàmm def ko seen def ko seen seen soxla ndax soo xam ne ñoom Tuubaa rek moo leen ñor te lii même ñii sax bu weesoo pompe yi bëgg bi ñoom sax ñu ngi jàpp ci dimbali population yi fële ci quartier bi ñoo xam Firdawsi ak yeneen quartier yi am am nañu teg ko fa citerne cinq mètres yooyu nga xam di ko duy ñu ngi leen di jàppale ci diiba di population yi woyofal mbir mi le temps que ñu def ñu yegg fële ci seen bopp yi daal mooy ñu xam ne mooy situation bi nga xam moo xew ci kii waaye ma pour ma waxaat daal xam ne problème pompe daal la moom pompe yi daal ñoo forage yooyu ñoo manque pompe. Hmm. waaw yàlla pompe nañ ne pompe yi ñëwee rek. du waxaatee xëy na situation bi dana hmm. changé. waaw kay bu fekkee am ngeen leen loo xam ne da ngeen koy laaj rek balaa génnaat bu soobee. waaw man de dafa dama amoon benn laaj bu ma ko bëggoon a laaj rek. Mhm. waaw di fële ci Daaru Minam 2 ci fo ñi nga xamante ni mooy forage su Ndiouga Kébé moo leen di alimenté. Mhm. Euh, dafa mel ne ñoom. Euh, bu robinet yi tijjee sax seeni robinet du xelli maanaam lu ci ëpp guddi gi la ñuy xelli est-ce que loolu ban saafara ngeen ci mën a kii loolu loolu laa ne xam nga dama ne loolu la forage ba la forage ba taxaw moo tax bu ko defee bu taxawee daanaka nag zone ba muy servir dootu mën a am ndox man daanaka bu ko defee nag guddi léegi bu guddee nag euh, forage yi lëkkale mooy tax ñu am ndox ak hmm. guddi gi demande bi day wàññi ko xam nga hmm. demande bi wàññi ko ñu bëree bëri bëri fa nag ndox mi dara xaw a kii ba circulé loolu moom loolu mooy interkii li li fora ñu dëkkalee yi mhm. na bu ñëpp soxlaa mhm. ñu gën a jege ñooy am ñu gën a sori mais bu guddee ba mhm. mu dal peri waxtu woo xam ne soxla ndox bëriwul bu defee mën yi nga am ndox ñu mën ko am ndox mais fi mu nii moom loolu ñoom dañuy dañuy dañuy am boo am ndox loolu am sax dañuy gis yoo xam ne ñoom parce que amuñu ko xëy na ñoom fañ ci moo tax mais am na ku ci nekk ci xaw nekk ci fin de réseau ba mm-hmm. ñu xaw ñee sori ñoom mm-hmm. loolu sax duñ ko mën a am xam nga mooy quartier yi nga xam ne fi ne boo fa demee daanaka xamuñu ndox benn yoon mm-hmm. macha jërëjëf sëñ Moustapha ñoo ngi lay jaajëfal baax a baax ci leer gu am solo gi xam naa rek ñu am lu doon sàkko leerluwaat muy diwaan bu sell bi nga xam ne mooy Touba bëgg nañu xam ñaata forage moo fi nekk waaw forage nekk la fi ne moom vingt neuf la vingt neuf allo allo waaw vingt neuf la mais vingt neuf yooyu da nga ci génne ñaar yoo xam ne dugg ci réseau bi muy bii nekk ci ay nu rahmati mm-hmm. ak bii nekk ci biir hôpital bi mm-hmm. yooyu ñoom bokkuñ ci réseau bi bii réseau mais réseau bi vingt neuf forage ma ñaar ñooñu ñoom mm-hmm. ay forage spécialisé la xam nga bii moom ay nu rahmati moo ko tax a benn bi hôpital bi mais yi nga xam ne ñoo nekk ci réseau bi moom kon vingt sept lay nekk ñaar ko juróom-ñaar jërëjëf sëñ Moustapha leeral yi am na solo macha allah. waaw ñu ah. ci liggéey bi xam nga. Ah, xam naa question bi dañoo daa askan wi dañoo sàkku ci leerlu ko. comme forage yi nii nga xam ne dañoo taxaw paan dañuy laaj financement bi fan lay jugee ndax ci sëriñ bi lay jugee wala nu ngeen di. yaakaar ne dootu yàgg am na xam naa métti waaye jàpp nañ daal. Mm-hmm. mais mm-hmm. waaw kay euh, Cheikh Moustapha waaw euh, ndax euh, li nga xamante si mooy paan-paan bi ndax dafa war a génne war ci askan wi wala sëñ bi la wala yéen ñi nga xamante ni yéen a yore liggéey bi wala ci gouvernement bi ñoo ko war a génne ngir paan-paan bi dañ ah, xam nga loolu moom daanaka man moom xam nga daanaka xam nga machine ak moom paan xam nga ah, ah. nga machine moom xëy na bu paan ñuy remplacé ko moom bu fekkoon ne yi moom ndox mi gouvernement bi moo ko yor. ndox war na yor xam nga moo ñuy wax service public bu ndox la xam nga. dëgg la waaw nag moo ko yor ni mu ko yoree ca Kaolack ak Thiès da ko war a xam nga. Touba moom li wax rek mooy Maurice mu jàpp mbir yi. daanaka duñ bàyyi kenn dara rek ñu leen ci dugal seen loo xam nga. dëgg la te gis nga tamit bi gis nga ko ci affaire santé yi hôpital bi kon boobu tey nii Maurice ñoo ko tabax ak lenn ak lenn ak lenn donc xaaruñu rek ne gouvernement doo koy def. xëy na nag ndox loolu moom it moo tax ñu jàpp ci ndox mu raxas moom day ñëw di leen jàpp ci seen liggéey. Mhm. waaye ndox mu gën a moom boo ko yor. Mhm. waaw raxas mooy li ñuy wax ndimbal na ca fekk loxol borom. dëgg la jàpp ci góor bu mu gën a wéyal. dëgg la loolu nee naa loolu li ko waraloon mooy ay paan yu ndaw daa di yàgg ay weer wala ñaari weer. loo xam ne mhm. presque boo ko seetee mën naa bay mat trois cent mille wala quatre cent mille. moo taxoon nag. li ñuy xaar Dakar mu ñëw ñu rek jël jàpp jox ko ñu jàpp ji loolu bu na leen ci doon nekk waaye paan yi xëy na moom dafay kii rek waaye fi ne paan moom xëy na machine bi machine moo dox noonu rek xam nga machine am mel noonu xam dëgg dëgg daana daana paan fu mu toll nag ñu ngi koy ñu ngi koy am problème yu mel nii. Uh-huh. léeg-léeg bu nekk benn xam nga bu nekk benn forage bu paan daanaka nit ñi duñ ko yëg xam nga. dëgg la dëgg la waaw kon demee ba nekk ñaar sax yëpp dañ koy réparé léegi mu ne nag moom kii bi ñoo ko xaw di waral xam nga ndoxum xorom mi ci la xam nga. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw waaw loolu lépp a waaw Hmm. dañuy am problème ndox mi érosion bi pièces yi li muy kii yooyu yëpp da ci feeñ. Hmm. après ndox moom teg yooyu yëpp. Hmm. après forage yoo xam ne si sëñ bi màggat na. màggat na forage yoo xam ne set yi bari yoo xam ne place mu baax moom la ko bàyyi woon xam nga yooyu yëpp day commencé màggat xam nga. waaw yooyu nag ñu ngi ci ay mais nag dañ ci liggéey rek. ay na ñu ci liggéey. lii moom li ko waral nii rek li mu ko man juróom forage defandoo. waaw ma faa toll rek muy benn muy ñaar dañuy jéem a dem réparé defaraat xëy na boobaa. Mhm. du yegg foo xam population yi sax dañu ko bañ sentir na am na xam nga. xëy mhm. lii boobu li ko waral rek bu ñu nekkandoo juróom juróom daa xaw a bari xam nga dañuy am loolu moo tax mu méttee nii rek waaw. waaw kay euh, cant ak ngërëm danañ bu ko defee rek nga fàttali rek euh, yow yaay kan askan wi nga xam ne ñu ngi lay dégg. waaw man maa ngi Moustapha Dieng laa tudd maa ngi président Maodo Rahmati. ci Mountakha Bassirou Mbacké moo ñu fa teg. ñu ànd ak ñoo xam ne Mountakha Mbacké ñu liggéey. ñu ànd ko taalibe yëpp rek te ñu ngi gërëm ñëpp. ñu rek am na comité directeur am na ñu ci jàpp. ndox mi ñun ñëpp ñu ànd. ñoom soxna ak si moom seen borom dër bi ñoom suñu soxna si maam maam soxna ak si Thierno bu sëñ Mourtala. gàtt bi Mm-hmm. pour commission bu association transporteur Touba Mbacke yi. Mm-hmm. donc sareet yi. Mm-hmm. commerçant yi. ñëpp ñëpp ñu jàpp daal maanaam ñëpp ànd ak liggéey rek. jaxee day ñëpp waa diaspora bi it tooguñu wax dëgg yàlla suñu mbokk yi nekk diaspora. te Espagne te Italie. te fépp day ciy joxe seen addiya yi ñëw. buñu màggal si ak yooyu am profité occasion bi ñaanal leen jafe-jafe yi ñu toll. danañ ñu def dañ daa def ci ndox. amiin jàmbaare la. Mm. kon nag ñu tolloo fii ci xale gi ñu ñaan parce que suñu bi. Mm-hmm. ci ñoom. jërëjëf Cheikh Moustapha cant ngërëm da ñeel ci euh, jàppandal gi nga ñu jàppandal ngir leeral askan wi nga xamee ni ñu ngi doon jooytu boobu ba léegi ngir mën a xam li xew ah. euh, dañ lay sant di la gërëm bu baax a ah, baax sa kàddu bu mujj rek bu ko defee ñu daal di euh, kii bu baneen yi. jërëjëf Cheikh Modou Moustapha muy kàddu yu am solo yoo xamante ni si yëkkati na ko euh, jaarale ko fii ci rajo Baol Média FM 97 point comme ni ñu leen ko waxee rek rajo Baol Média FM saa su askan wi jaaxlee amuñ fenn foo xam ne fa lañ jëm di bàyyi xel seen rajo Baol Média FM rek ñu indi leen ay leeral rawatina ndox mi nga xamante ni ci diggante Touba ak Mbacké euh, doon na fi ay jafe-jafe ba nga xamante ni si kenn ku ci nekk rek yaa ngi ciy bàyyi xel euh, bu ko defee rek dégg ngeen ko yéen ñi nga xam ne yen laa bokkal plateau bi dégg ngeen li nga xam ne Cheikh Moustapha moom la wax ci ay leeral Thank you.